alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi sawi doona tantin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al kalami rasidan wa mursidan wa fikrati nabiyan wa qalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa kàddu yi daf di ndigal rek waaye jër woon a yëkkati ndax uh, li fi sëñ Balla Gueye waxtaan doy na sëkk ci luñ war a xam ci kilifa gi ñu doon jàngat di sëñ Fallou Galas si la leeral itam doy na sëkk ci luñ war a mën a xam ci diggante mag ñu baax ñi nga xam ne moom ñu jàngat xanaa def di rek ndigal nag caabi la su ëppee du ubbeeku su ti yeesee tam du ubbeeku li ñuy wax léegi dama ne sëñ As lépp sa loxo mu ne mënta ñàkk ñu yëkkati ci kàddu rek xanaa kon kàddu yu néew lay doon turu sëti maam si yi ñu àndal di jéem nër nër bu di liggéey ci lu jëm ci waajtaayu màggal gi sëñ Seexuna ak ñu àndal ñëpp ñu ngi yëkkati ab nuyoo ak siyaar di ko teg ci kilifa bu tedd gi toog ci toogaayu sëñ Modou Ndiaye li ñu njaboot gépp ñu yóbbeeg siyaar bi nag ñu ngi jógee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifatul am bi Mouridiyya ak Serigne Mor Fati ñuy toog toogaayu Mame Cheikh Anta Serigne Djili ñuy toog toogaayu sëñ Modou Mamoun ak mbooleem njabootu Mame Cheikh Anta gépp ki nga xam moo war a wax turu seen njabootu seen mën jaay jóg mënoon naa wax ci suñu tur ndax ñu dañoo jàppee suñu bopp ci taalibe yi gën a suufee ngir war a liggéeyal maam Cheikh Anta li tax nag ñu tànn kilifa yu mag yi bëgg di leen jàngat jamono bu nekk mooy daf di dañoo toll ci jamono joo xamante ne léegi li koy nuuru nuuru lu dafa bari te du ko léegi nag mag ñu baax ñi nga xamante ne seen pas-pas bi dafa dëgg woon seen ànd gi selloon bu ñu leen dee jàngat. danañ dem ba xale yi am royukaay yoo xamante ni wóor la ndax kenn umpalewul ne jamono ji yàqu-yàqu yi bari na azimat yi maanaam crise yi bari na crise su jikko yi crise su pas-pas yi léegi pas-pas yu wóor bareetu jikko yi yàqu na xam-xam amatul nit ñi cofeel la ñu jiital loolu nag dem na ba yàq-yàqu goo xamante ne kenn mënu ko misaal léegi nag li ñu ci mën a dimbali ñun dañoo jàpp ne weesuwul ñuy jàngataat mag ñu baax ñi tey sëñ Touba dañoo wax ne ayaa xaadimal muxtaar laa sa saabuhu fa man yan sahum falmat humat un mu xattaw daal di wax ne abou bakrin sadiq soo siddaxi wal wafa rafiqu nabil moustapha xaara an baw noonu la ko limee saxaaba yi mu mel ni ñun ñi bëgg ànd ak Serigne Touba wala ñu ànd ak Mame Cheikh Anta mag ñooñu àndoon ak ñoom dañoo am solo lool ndax suñu borom bi muy wax tëj dit doonut ne jëmm mooy ñëw kaalawu rek ñëw def tëjjit waaye tëjjit système lay la maanaam Sëñ Tuubaa li mu ñëwee dafa amu maam Seex Anta borom Gaawaan am maam Cerno Birahim am maam Seex Rafal fee amum Seex Isaa Jeen sëñ Gaawaan am sëñ Mun Njaay Jóob amum sëñ sëñ Mor Faati Touré amum sëñ Baay Laay Gay ñooñu ñëpp ku ci nekk am na loo doon def ci système bi ku ci nekk dafa am utilité boo am njariñ loo amoon ci taxawaay bi nga xam ne moom la Sëñ Gaawaan doon liggéey sëñ Touba tam ñuy taxawaay yooyu ñu mu àndaloon ñooñu ñëpp ku ci ne dafa amoon njariñ ci système bi nga xamante ne moom la sëñ Touba doon liggéey loolu mooy yeesal waaye yeesal du caagi ne rek sëñ bi dafa ñëw daal di ñëw rek defar lépp ndax suñu borom moo gën a man loolu te defu ko ndax suñu borom su demee bay wax naan in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdaamakum su ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbal leen xam nga loolu waxin la kon doomu aadama waxi nopp ñëpp soxla nit ba loolu moo tax nag ñu jël mag mu mel noonu ci ndigalu sëñ Cheikh Anta ak waa Daaru Salaam gépp ne nañ xool ku mel ni sëñ Mun Njaay Jóob tuddee ko bis bi ndaw ñi jàngataat jikkoom xool ni mu doon doxalee te ku ne dégg nga fi ak ngor ku ne fi dégg nga fi pas-pas ku ne dégg nga fi si du xulaa siimati dogu gu wér a wér a wér ak jaayant gu wér a wér a ak jeex tàkk ci bëgg li nga xam moom nga bëgg te yow doo mas a gis sa bopp mm. yaraw na an fasahum doonal war a abadan wa annahum lam yaliqu bil karamat ñoom duñ mas a gis lu baax mukk ci seen bopp ñeneen rek lañ koy xool te moonte mën naa am bëri na ñuy kawe kawe lu te fekk ñoo leen gën a kawe fopp ay góor yàlla lañu dañoo nëbbu seen bopp ngir doxal système bi loolu nag xale yi foofu la ñu war a jàngataatee ngir xoolaat ni doxalit yi demee ni jamono yi doxee ak réseaux sociaux yi rawatina lii nga xam mooy internet bi dañoo war a xam ne léegi dañoo nekk ci mel ni penc àddina bi léegi mel ni penc la moo xamante ne. ku mu mën a doon jàppal ne li ngay def nii waa Amérique ñu ngi koy gis waa France ñu ngi koy gis waa Sénégal gépp ñu ngi gis su ko defee nag bu loolu amee ku nekk ci ñun looy def nga koy bàyyi xel di ko seetlu xam ne ñëpp a ngi lay bàyyi xel loolu bokk na ci li nga xam bokk na ci ñu taxaw ko léegi nag sëñ bi dañ yaral tuuti ngir ñun ñii nga xam ne ñoo ànd di njabootu Maam Seex te ñëpp bokk ci ndax njabootu sëñ tuuba moom nee na. ku nekk la nga baax le la bokk ak yow sëñ gaawaan ci biir sëñ gaaw sëñ Tuubaa la bokk kon sëñ gaawaan mën nañu jàpp ne ku ci nekk la nga baax rek la bokk ak yow moo xam nga bokkee ci ci noo ci bokkee ci pas-pas te moo gën a am solo ndax way saa nu fi xafi suuri fala bay baynahum soo ëllëgee bufta ba walee ak mbokkoo day jeex pas-pas rek moo fay des ñun nag li ñu tax ñu tàggoog suñu sagoo ci dëkk bii nga xam mooy Daaru Salaam ak màggal gii di Daaru mooy suñu pas-pas dafa ndax mooy dëkk bi Serigne Touba njëkk sos njëkk fàgge suñu njaboot rapaatale ko sëñ gaawaan la ca topp mooy suñuy waajur suñuy maam ñoom ñëpp fa lañ leen denc fa lañ leen suul te ñun ñi yàlla na yeex suñu faatu fa lañ ñuy suul mbir moo xam ne nag mënoo fexe ba du la féete kaw loo ko yëkkati doyul loolu rek mooy yéene ji nga xamante ne ak pas-pas bi nga xam ne moom lañu am ak njabootu maam si ante gépp ngir bëgg a ànd ngir liggéeyal ko ngir ci bis bi nga xam mooy bisam bi ni muy doxee ci jamono maanaam li nga xam moom la àddina bi doxee ñu ciy jéem a moderniser ndax xam nañ ne ku ci nekk Daaru Salaam ay nit yàllaa fa nekk ñoo xamante ne alxuraan ak wird ak liggéey ay al góor yoo xam liggéey ak jaamu yàlla rek lañ nekk waaye nag dafa am nu do jamonoy doxee loolu rek moo tax sañ sëñ naa ak njabootu man sant gi ñu àndal ñëpp ak seen ant sàmbu mi fuñ toll ñuy jéem a góorgóorlu di jéem a moderniser di yaatal loo rek mooy yéene ji waaye du leneen ndax ku ci nekk euh, am nga yitte yoo xam ne mën nga koy doxi waaye nag bu suñ gaawaan soxlaa ñun ñëpp suñuy soxla day daal di dàqu kon nag kàddu yi dama koy gàttal ndax euh, am na ko war a wax ci tuuru sëñ Cheikh Anta ñun dañu doon ubbi rek yeesa wax sunu cant ci njabootu suñ mujjaay jóg gépp sant leen ndax ni ngeen teertoo nii ngeen jàppe bis bi kawe na suñu jot bett nañu lool fooguñu woon ne da ngeen ko taxawoon ni jàppee ko nii waaye mbir mi nag day seen yëf yow sëñ bi di nga xam moo war a wax sa tur sëñ am di Diop mënoon naa wax sa tur wax ci turu comité d'organisation bi wax ci turu sëñ Cheikh Anta bu ko defee mu mat sëkk ndax ku ne xam nga ne euh, soxna yu baax yi ñu àndal soxna Ndeye Diop fii la fii fii la bokk ba soxna Anta Faye fii la bokk loolu mooy wane deret gi jaxasoo na waaye pas-pas bi jiitu ko pas-pas bi jiitu ko hmm. kon nag sëñ bi soo waxoon wax ci turu comité d'organisation bi wax turu sëñ Cheikh Anta dana mat sëkk te ñun dañuy am mbégte bu baax a baax a baax a baax a ndax dañu jàpp ne lii suñu bis la ñun ñoo ko waroon ñëw taxawal ko suñu bopp kon nag sëñ bi ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu yi euh, di di di di ñaan suñu borom mot ñu di ñaan suñu borom yóbbuñu ci màggal geeg jàmm Euh, conférence bi ñëw itam ñu waaj ko euh, incha allahu rabbi màggal gi bu ñu defee ba ci suba sa cérémonie bi incha allahu rabbi euh, ñu defee ko ni nga xamante ni noonu la daan demee kaamil yaa xam nga ni màggal gu ñuy wàccee lu ma juróom-ñetti junniy kaamil foog naa amul ci Sénégal juróomi fan daara yi nekk ci Sénégal yëpp daje ñu wàccee alxuraan ñu leen di berndeel loolu foog naa ne boo amee man mosuma ko dégg fen loolu nag tekki na li sëñ Tuubaa naan kansil kitaabu wala xadiisu wala adab laa jamoo fiddatin wala jamoo saal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu